Jangan jeff, mbokki internet yi dalat leen ak jàmm rek dikk ak yéen la sa gën a di bukan gay dani, beram gam gëm sa bopp moom i nëbduwul fenn yoon jëli xeeram rek di ko tifaar si kaw gouvernement bu bees bi si li nga ak nit ñi nga xamante ñi ngi nemmeeku na rek ñi ngi dee si euh, ndox mi euh, pour ndaw yi nga xamante ne si ne rek di jël euh, yoonu gaale di immigration pour rek dem bëgg a dem réew ma ñu siy dee ñu bëri kookee di Bougane Gueye Dany nag daal si yëkkati kàddu xam na nag euh, jamono ji rek président Bassirou Diomaye Diakhar Faye gouvernement am duna rek maîtriser la nga xamante ne si na moo di moomee la mbir ndaxte nag nemmeeku na na euh, fan yi gis nañ rek ay ndaw yu bëree bëri di géey rek si géej gi ndax bëggoon a dem fa xam ne moom moo di réewum Espagne moom kookee di Bougane Gueye Dany sax yëmul rek sa loolee ndaxte nag maa ngi say toftal di xam leen rek kii di ñaare lupp kooke di président basiru jamaay jaqar fay ma nga sax yor sàg bu xamantane si na daa nay seer lool sib xaalis takku lool moom kooke di bugaan gay dani xam la lu mel noonu ba tax rek tont yi mel na tullek malle si internet bi kenn ku ne rek di indi sax xayma ak di wax rek la nga xamantane si na moom la boobe la sàg di jar ndaxte nag la xayma gan yaakaar na boobu la sàg bi jar daatul àggul foofa ndax ñu si bëri ña ngay waxee 35 mille waaye ñeneen ñi di wax bokk si opposition bi daal di wax na saak boobi rek ay millions lay jar ba tax na rek kenn ku ne rek andi sa xalaat wala sax si commentaire yi kenn ku nekk na nga ko gisee tontu yi mel na rek tullek man le si internet bi mom buggaan gi dani rek la mu xam la na moo di eh, jamono ji rek état bi war naa def kentu lay kàttanam ba jàppara rek ndaw yi nga xamante ne si na danoo amoon yaakaar bu baax a baax si eh, nguur gu eh, bees gi si gouvernement bu bees bi ak projet bi nga xamante ne si na moo taxoon ndaw yu bëri bëri daat leen di topp kon nag war na leen a mën a jàppale bu baax a baax ndax jamono ji gis nañ na ndaw yi ba tey bàyyeegun yoonu gaal gi saa su ne rek ñuy nemmeeku ay nit ñu ne dañuy eh, dem si eh, mbëkk mi si lu dul yoon loo xamante ne si ne famille mujjee du neex kenn ndax ñu si bëri dañ si daati mujjee ñàkk seen bakkan mu doon mbir mu xamante ne si ne rek daanaka du jamono ji la commencé waaye daata na yàgg lool jamono jii ñu koy nemmeeku rek mu doon ñoo xamante ne si ne dañuy jël gaal yi fas kee jubali bitim réew waaye nag ku si amul sa dara danga say daat rek ñàkk sa bakkan mu doon mbir mu doy waar jamono jii ñu koy dund fii si réewum Sénégal.